tëggal ñëwal xaaral ma ñëw ñëwal. fas fas fas. waaye nag doy waar bu dee tëggal. xaaral ma ñëw lay Bye. xale bi dee na ko ñaara ñaara mooy xale mooy xale kee kee nam naa la wuli si loo nekk asalaamaaleykum maa ngi sant yàlla wuli dafa am lu ma jaaxal te boo doon fekk da ngay sonn te tey sonn waaw sant yàlla la parce que abat nañ ci wax maa ngi nuyu ñëpp gërëm ñëpp di sant yàlla suñu borom di sant Muhammad sant sama ñaari waajur di sant sëñ Modou Xaban Mbakke sama wasila di sant sëñ Abdou Karim ak di sant bu baax a baax Aziz Aly Ndiaye sama xarit léegi woo na ma di sant Badou Rakam Badou ñu àndandoo Gàmbi sama oto jërëjëf Badou. sant Baye Abdou ñëpp ak waa Kër Baye Aya ñëpp di sant Idrissa Ndiaye surtout nag daawul tey ñoo bëgg a àndal ci euh, sénateur bi di sant Sow Omar Sadio. après di nga sant ñëpp sama gars yooyu ci kaw. ñoom soo technique Babou ak ministère. Ah. baax a baax la ñu. Ah. maa ngi si waa baax di gërëm aussi ñoom Alain ak Dindo di nuyu Pape Pape Sène. waaw combat bi ñu ne Europe yëpp fi mu sax sama oyaam ma daa plafonné parce que tap tap seen lañ ma jaale xaalis. waaw ma ngi récupéré ko bu gaaw. waxal nit ñi lan mooy tap tap seen. tap tap seen mooy. waaw bés mi xam na ko. yow tamit xam nga ko waxal. sa waay li mooy tap tap seen. waaw caméra bés tap tap seen a ngi. yaakaaroon caméra. tap tap seen. waaw. da ngay ne bitim réew foo mel ni si Europe boo bëggee yëngal wuli xaalis fi toog ngay toog Adama Diouf waaw boo ko xaalis bii wala lu ko ëpp ñun doon bëgg na cinq cent mille plus aussi da ngay jaar ci tap tap seen ñu ne ma ko directement ñu ñëw ci sama Orange Money international ma dem du ma dem banque nag damay dem ci tap tap seen gàcce ngalaam Pape Pape Sall képp ku nekk ci Europe di yónnee xaalis Sénégal di dem ci ban banque demee ci Pape Pape Sall installé ko ci sa téléphone application bi mu gaaw di gëm aussi rentre Dakar mu baax dafa liggéeyal sponsor yi rentre Dakar bii ku bëgg a luwee oto bu rafet wala bu luxe bu am euh, mu ngi nii rentre rentre a ngi nii ñu aussi dañu doon leer topp Transit Africa parce que li lépp bu amee ñoom ñoo taxa sponsor yi topp Transit topp Transit Africa bi dañuy def transport bi ko eh conteneur lii amoon nañu aara ah, lii amoon nañu aara Yoro ay door marto rek nga nekkee Sénégal waaw fii nga ma jël Adama Diouf door marto bi am ay terrain door marto ak may ay oto mais nag gannaaw loolu damay nuyoo di nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yëpp ndax may mbaru askan bi loolu kenn du ko natable di nuyu nag timbital ménagère yi Père Max ku baax la yàlla xam na ne bu comment bi taxawoo sur plusieurs dafa ne ah tàggoo naa yem de yéen sama ñaar doom bu fekkee mas na la woo boobu ba léegi bu fekkee mas ma wax yàlla ngi nii loolu a moo mel noonu. kon nag sax ñaar doom la. ñu ngi sax wax tey tamit. da nga wax tey dëroo. Eh, di nuyu ñëpp moom fils ndax nit bokk déggoo Ousmane Senghor ma àndal. góor président fan si Kelle Mbaye Fall. di nuyu waa Dewal yi Maodo borom Kosa Massi di nuyu sama jàll bu baax bi di nuyu micro central bi micro central adressé nga di nuyu menaces yi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam. li wax ñoom nga ci tab-tab seen mais ren de ku fi wax ci oto tamit boo a fi jënd oto tamit ku fi jënd oto tamit gënoo ren de teer yaa ngi ci erreur. mu ngi ci ci suuf bu ne ñes jóge nga Grand Yoff di ñëw da ngay jàddee kor nga Cameroun. ci boo demee ba ci ba ci euh, nu mu ci. waaw mënoo ko xam ndax dama góor fa may nañ la oto sax mais gis nga uni waaw am na loo bi dafa jeex may nuyu nag waa waa suñu commune Mbella Kajoor. na ko di jaale suñu maire bi nga xam ne dafa gaañu. di ko ja eh, di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko arjana lu ma xam ci moom teg ko ñaan nga ñaanal ko yàlla xare ko arjana di nuyu waa suñu dëkk ñëw dan fi ma dëkk Nguuru Pol Taabe Ker Bakari Saxaw li eh, eh, mu tudd. dinañ di nuyu benn chaîne ne jënd ay ticket. waaw commande ay ticket muy Demba Gueye jërëjëf te commande ay tuddee buy buy 25. le 25 ndax du le 25 rek ndax du ñu dugg ci caayam. non kii damay rafet ci caayam waxoon naa ko bu ñu def interview bee passé muy nar naan bu ma waxati loolu loolu fayuma ko dinaa la am at yow. sama caay bi am dugub ma tëkki ñoo bi nga wet. <laughs> baax na di nuyu nag tam CNC di nuyu président CNC di nuyu Matar Ba. nuyoo bu doy na am. waaw Matar Ba. di nuyu nag géotechnique eh, géotechnique yëpp am séeréer la. man rek lay supporté non non def nga ba mu may la tere mais tere boobu dañ koo nangu parce que yàggagul tere bi dañ koy wii rek ci sama yoon ci tubaab bi ñu ci wax nag mooy wii boo gisee ma jël ko dama ko nawloo mais nag wii ponkal la ndax lu ma waxoon yëpp am na combat bi dama daan aaj ma rek mu teg ma sax na yow lay bëri Sénégal ku ne woo na ma toog am ay téléphone te téléphone moom neexu la bañ fekk na ba ko paase nag encaissé ci ba torso bi ko ay bukki nekk fi fekk na ba combat bi mu encaissé lim ci buggu loolu réussir na ko mais ci biir teew bi fii sax yàlla nag gis ñu wërale foofu doo ko mën a recibé foofu moom fooy jaar dana la dimbaat dana la daan foofu moom ñu oo boo bëggee nag ni ma la gisee mën naa ma oo fan la ndax alaaji bay oo fan la daf ma tegoon benn mais yow gis naa la oo fan nga si biir ñu ne mais keroog da ngaa waxoon da ngay xeex combat non ko li ma la xanaa lami li ma la xeex xanaa da nga bëgg a arrière wax ji dee duma dana kay lan lay duma duma kay door la duma waaw duma moo ci nga bëgg a door ko bi laa waat ko barkeel si laay daal duma daal daan. rasulilah daal duma daal daan wuli. ah dama la mos dama la mos daal des. rasulilah des sax la comme oyofal nga xaaral. ndax mu wax la xaaral wax la xaaral wax la non non. dama la comme gis naa ne oyofal nga dama lay tes wuli. non xeet lay tes dama lay mosal tes. waaw lan dama lay mos pas pas boo diggante ne ma duma la. waaw combat bi vraiment dama doon wax dëgg ma bu ñu ko gisee ma jël ko nit da ngay wax gis nga par exemple gis naa mbir yu nekk fii di jéem a tuuti mbor. wuli kan la sax yus mu daw bëgg na sàkku lañ waxante dëgg teel a tax te sa politique bu ne wuli bëri na ak moom boo ko xoolee wuli li muy am ci lamb ci tey daanu ko am ba muy nit loolu la yàlla moo koy def man nag ku am jom laay jël bëgguma koo xam ne te kenn sax gis ngay daw te yow di nga am jom rawatina nag waa rente kaye gi nga waa rente te taamu na nag ci arrêt carte bi boo fa demee sax ne coog soob bu ne sax ñu lay xeex dañ bàyyi loolu ndax ñoom boo ko xoolee dañuy jox awoor ba léegi permis ci revenirul te boo bëggee dëgg dëgg nag nekkul sax am na mbir yoo xam ne dañ leen ba tollu ay sax ñu ñëw ko loxo ci suuf te wax ji bari na mais mën ta ñàkk ndax tey bés wax la il faut théorie avant pratique pratique bi ci biir géew fee la loolu man maa la ko wax bi gërëm ñëpp nag sant ñëpp waaw sa waay nag ñëpp ne ñëpp ne Adama Diouf la man waaw Lamine nee na ñëpp nee na Adama Diouf moo mën moo tax combat bi vraiment aada amoo ci sens parce que combat caab rek la fàtte parce que suñu Bamba entraînement yi ma entraîné billaay wala min dix ans ci ma entraîné moom billaay nit na trop entraînement yi général Malika léegi mu may woo ba cinq ans ñu ngi billaay barke Muhammad Rasulullah bi caaxaan non du ma jaxase ay nag booy fal maa ko teg léegi mais général Malika ñooy entraîné bis ñu ñooy am durie vraiment ak ñoom bulldozer boo yooyu ak ñoom armée Modou Lo aussi parce que minute ñu saal xam nga Modou Lo ñu saal di entraîné entraînement yu nit yi lu ñu wax ci combat lan parce que foog na entraîné ndax yàlla moo ko yor man na ma nag fa tey ma yàlla ndax lépp lu am yàlla suñu la tey maa ngi sant yàlla bu baax la mun tey tey bu ma yàlla rewoon léegi ma sant yàlla parce que maa ngi sant yàlla baax la ñu. torche Rakib Salif Sadio bu Casamance Seydou Omar Sadio mu ma ko mu ngi fii waaye foofu laa jógee. ana maam bi Miss. Eh, maam bi Miss dox la. sang naa fa bag dem ñëw comprendre nga Lamine. comment bu ma foog laay bëre barke mu parce que man xam naa mu ngi may barke Mohamed xam naa ni mu demee. yàlla wan na ma ko barke maanaam du caaxaan barke Seydina Mohamed. xam naa nit nit nag nit bu amee joo am di noonu lay def kontaan naa ci yokkute boobu nga wax mais lamb ji moom na jaral jar na ma la ko ut. lamb ji fii man nag gis naa ne sax ay combat yu bari jaar nañ ci mais lamb ji nit bu lay jox ndewenal dañ koy jël si waaye ren de ren da nga a joxe ndewenal ndewenal bu ñuy joxe ñun ñii rek bu combat bi yoroon fii rek ñeneen yëpp mën nañoo toog. ñoom kal mboor maa ko nuyu ak ñëpp mboor yëpp ak ñoom papi ma ak eh, mboor yëpp tax bu ma dumee damay juum moom bu ñu xamoon li ko tey maa koy ñaanal bu dee tey jàmm la yàlla ji yokku lamb ji dama ca bëgg a woo nga xam ne dañ may jàppale maa ngi gërëm Abdoulaye Ndour Daas di sag ma solo ko nag ma jàppale bu baax a baax maire de la commune de Grand Yoff ma Diop Diop Abdoulaye kii ñu tudd Aram Ndour eh, eh, directeur numérique Mamadou Touré ak Touré Thiaré dama leen gis ak Maïs Sarr ak Tamsir Faye Souleymane Dooral sa tey naka docteur Macoumba Diouf bu baax ki ñoom dañu yàgg di ci jàpp Matar Diop au conseil bu weesoo loolu maa ngi Pape Sama gisaguma sa loxo sa combat ba la roofoon ay loxoom bàyyi li ñu ñëw ndax combat bi dama nekk combat boo xam ne dama ko fonk di gërëm directeur Kout maa ngi koy ñu baax ak Aliou seen loxo daa bëgg ngeen ñëw ci ci bi bu baax a baax ndax combat bi xam naa ne maay daan bu soobee yàlla maa ngi koy ñaan ci yàlla wunit naa la daan jël bu set di ko bàyyi ñoo nag la mi da ngay xaafa rek xul waxoon naa ko passé wuli bi wax doo tey li korum loolu bàyyi seen wuli da ngay xaafa wuli day wax ba dee di kontaan ñëpp boo xam ne nag sama nag la bari ñoo sax ci suuf rek ñoom karamboj ñoo koy jox mu ne maa ngi mos yaa ngi mos bàyyi seen wuli am baax na xam naa li ngay doxal eh, eh. keroog jox la yu da ngay mos xam naa li may da ngay mos da ngay mos parce que tey dañuy invité ci xaalis bi da ngay mos ma mos ah mosuma tey Basirou damay leen teel Basirou damay kontaan naa bu baax a baax nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw mais xaar ma gërëm ma gërëmal dara duñ ko dara duñ ko mosal ko ba sey dama lay mosal do ofal ni dama la ofal ni yow fay jàpp dama la dama la dafa dafa dal ñoom wara ak sa xaalis bu ko daan adama loolu moom tamit maa ngi dem daal mosal bu baax a baax. waaw man damay gërëm. Lamine da koo am fay 500000 léegi. Lamine damay gërëm. yow boobu léegi yaa ngi wax du topp ci. Lamine li ma wax léegi na sant yow bu baax. combat bi dina fay. ñoom Alain ñu ñu ma ci fay ñu bëgg 1 million. ñu ma jàppale am na 7 millions. combat bi. Lat Diop maa ngi ko gërëm bu baax. léegi léegi. waaw waaw léegi 1 million. sama xarit bi ci amoon mënoon asal na nga ne danaa nooj bii ci guddi ma xaalis jëleeguma ko jabaram Fatou Mbaye Assis Ndiaye xarit bi war a dina suba ñoo na maa ñëw mu jox ma deux cent mille ma gën a xarit bi sarax di ñaan yàlla suñu borom dem naa fi mu jëm a dama fen di na après si fii après ah. non non bàyyi soo technique. bàyyi bàyyi li ngay wax après ah. tey ki mu fa demati. après soo ma xamee. après waaw après. Ah, ban après ñëpp ñëpp doon nañ ñëpp mënuñ na xaalis. waaw Ablaye Tine bu xamal. dafa am na ñëpp maa maa ngi sama li ñuy wax ni mag bi li bi boor bi soufflé suñ combat moo gën a neex seen combat ñaax nañ seen supporters yi ngir yàlla ak yonent bi ñu sañse bay jënd parce que nag benn affaire moo am bu fekkoon ne ba bi suuf la nga tey ci tag gabor bi jar na nga xeex mais lu miti miti miti sa duras yi mënoo mënoo leen violé wala suñu grand jeu technique mais ñu fexe gars yi sañse bi jag ñëw taxaw fii lii dafa ñaaw mor yi bare ko bañ ñu bi nag waa ren dëkkaay joxuñu ko nag pour ñu raante ah nga gis ñu fii boor bi suuf la nga gis lu tàng kon yan mbër yi wax leen ak supporters loolu kontaan naa ci bu baax a baax di leen ñaan nag ndam ci man yal na yàlla def jàpp ci réew mi def ko ci adduna bi merci kontaan naa su ma ko sëñ la boos maa ngi lay nuyu. su ma ko sama xarit eh maa ngi nuyu Babacar sama xarit maa ngi koy nuyu. ma ma njëkk a tawal micro kontaan naa Boucar Ndour waaw Boucar yow la Boucar maa ko ah, Boucar Boucar